Oustaz dama la bëggoon euh, won itam euh, beneen photo nga wax ma kii kan la kii <laughs> xale bu teel a jàng alxuraan la kii xale la boo xam ni leer gii ci moom <laughs> bokk la leer gi ci yow <laughs> kii kan la Oustaz wax rek xam nga xale bi amul baqata xale bi tilimul xale baa ngi set wecc te kaamilam bii teel jàng teel a mokkal teg ci def koppateem yére yi set wecc xale bi boo ko xoolee rek xam ni miinagul àddina leer gii kii kan la oustaz xam nga ni kii yow la. mais Pape. Euh, xam nga temps yi xamagoo yaa awa laalagoo avion bi wàcc Milan waaye bi nga màggee ba miin àddina xam ñoom yaa awa ak xale yëpp. daanaka ci la leer gi afa sax dem na wala temps bi yaa ngi ànd ak leer xoola xes pecc waaye léegi sas yàq nga sa bopp instant bi xamagoo dara xamoo sax ni jamono dina dox ba nga xamanteeg yaa awa ku la ko waxoon doo ko gëm nag mais lan mooy importance su euh, teel a jàng mais Pape photo bi Eh, yëg nga ni bis bii laa mokkal alxuraan pap macha allah. photo bii mooy bis bi ma mokkal alxuraan. Mhm. bis bii bis bii lañ ma tàntal ma tari baqara ba bis bu ma neex a ngi nii pap ci yàlla waaye nag lépp dama koy gërëmee sama papa. Mhm. sama baay mi ma fayal ci daara ji may jàng. Mhm. ba téere yàlla bi teel a dugg ci sama bopp bi. gërëmeewu ma ko kenn de ko dul moom. lépp moom la parce que sa baay mënoon na laa def apprenti. xam nga fi may waxee à l'époque te defu apprenti. <laughs> mais da laa teel a dugal ci daara ji nga teel a jàng teel a am xam-xam macha allah donc photo bi euh, euh, pour barkeelu la mais importance su teel a jàng. importance balaa ñuy dem ci question yi. waaw mooy euh, moom daal ni ma ko mën a analyser mooy dafa sàmm.